متعنا لك السماء والأراضي والأرض بها مشارك يوم من شبه بنا أجد وسجد لي منه حركة نبي محمد وسجد تأتاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp xam naa ko kon di ko dara ci maanaam seen xarit ñi nga xam ne moo doon def daan di di ko sant bu baax a baax ci waxtaan daaj bi jiwaat na xool yi bu baax a baax ci nu ñu mën a jëriñu ci sëñ bi xam naa di ko ñaan rek tey di ko nuyu sëñ Saliou bu waxaan dana xaan doon waaju dee di ko nuyu bu baax a baax waay xam naa jógoon na sax ginnaaw moom li mu wax ma ma ma dana sëkk nag ma dana sëkk leer na nga xam ne daal déggul sax nag mu ma di see kàddu xanaa rek teg ci ci kàddu ñambaat ko rek ci ngir telle ko xam naa man de daanaka li may bëgg wax rek tuuti la ci di di ko déglu ci cee waxam moo rek daal tawxi tawxi daal moom ma damaa jéem lool xam ne mooy sama mbir moom laa bëgg a doxee moom laa bëgg a daal gisee tasawuf nag gën a am lool danaa ko sax dund waaye nag tawxiid daal damaa gën a gën a wóor man tawxiid muy tëj yàlla borom ngóor gi dafa xool lool si jari bi bi laa xool suñu borom jëm ne boole ma si ñi nga xam ne barab la ñu doon toppatoo bokkoon naa ci xam ne ma kon kon wax am naa ci lu sin waaye damaa gis daal jifee daal borom lu ci man lool raglu lool lool nga xamante ne daal moom koo xam ne bëggoo woon pepp suuf laal ko tax ma xat lool tax ma nekk naa ko muy ab sebre yaatooy bi nii xat lool boo maa yëgee nag jaaxama lool xane suñ doom teraanga ji li muy rëy rëy du la teral teral foofu la ne jëmm jëmm ji loolu la daal man def ci man jiitaañu lool nga xam ne daal man toog toog toog it yi kon damay gën a wóor toog it wéetal yàlla karaa yi wax ne day man su may gëstu di nelaw sama xol bi ku dul yàlla doo ci faral man de man de foofu la ne xam naa ne Cheikh Moustapha sama sang ba ne woon na jiwam ma doy waaye man de taw yi dama doy taw yi lu dul yàlla daal moom xam ne moom dong moom moom moom nguur gi lu ma la fonk fonk nag xam ne jaamu yàlla rek ndax waaye nag lu lu ma la tegteel nag moom nga bàtt yàlla dee kooku moom dee xam xamagu ci man ñu def seen ci beeg suñu beeg ñëpp ñëpp daal laa jëmal nag ci ni ma wécceel yàlla man yàlla ma ko wutal man daal damay xool sama jëmm ji ni ñu ko yàlla defaree man ay waay xam naa bu doon nit di ah ma man nekkoon maanaam sonn na kon ci liggéey ko ni ni mu rappelé jëmm ji rappelé ko ku ne mu war ko rappelé ko ci yaag ku ne mooy def ko ay coow yi génneel ndox ak génn génneel deret ak lépp ko def ko def ko ñoo ko ba mu njëkk su tural ma lool su su soo xam ne man boobu sant kenn du ko xam ne ne loolu tur rajo mu ne ah kii bi moom wax dëgg du du ma bëggal kenn daanaa wax ne léegi ah man day man de ku ma ku ma jëriñ ku dul yàlla waaye nag danaa wax ci warmaal yi kenn dinaa di seetlu tuuti salaam lool danaa ko warmaal danaa wax ci warmaal suñu bàmba lool waaye ku ma jëriñ ku ku yàlla nag man man xamu loolu nag saa bopp lay wax saa bopp man man man képp laa man maanaam waxuma keneen sa bopp rek fa fa may jéem a nekk laa wax soo man de soo ma xam ne fa ku jéem a nekk nag lay wax ci nag suñu borom bi man de dama ko ragal lool ragal naa ko ragal ay boo boo boo xam ne daal bëggoon naa yéen ñëpp maanaam fekk ma cee loolu tegal ko ndax seen seen baaw amoon naa ma maam yoo xam ne dara wax naan suñu borom de ma mu ne man lu xew kii ci lu ma la xew bu kay ngay wax xaw ma nu mu muy xewee ak fan la moom dafa sëñ si loolu am naa wujur yoo xam ne dara wax naa mën de génn sax de bu bu guma ko ndax dara nag wóorul ba tax xew guddi am na man moo xam ne sëñ soxna bu daana ko laaj ci ba tax naa ko loo gis ci ci ba tax kooku bi mu mu di ko waxtaan ne ko ma ne tey li li ma ne ci wax de tey dama koy waat ba ne ko si soxla ko si si si si mu ne ko mën ko waxaan rek. mais boo dee gis naa fa koo xam ne ku daal góorgóor góorgóorlu la ci adduna nee na morom ma ko ko ci ab néegu ban yoo xam ne ne ma ngi ruus wala ma maanaam ñaar wala yéen li waaw suba mu loolu li ñoo ma rek jëf ju baax jëf jëf ju baax ju mu digoon ne moom nangu ko de ci lañ koo fayee lii te bu jeexee kat ma nga jëf ma nga jëf safaan ba nee na mu ma ne leen waaw yéen xaar su ngeen gisee ku baax bi doon wax ñu ne suñ ko gisee dañuy fàtte su ngeen suñu baax dañuy dañuy fàtte waay kooka dana doo dee garaal dina ci maanaam saison bu foofa de ñi fa gën a ñi fa gën a baax ñi fa gën a jëriñu foofa mënuñoo jox sëñ bi loxo ab weeray do jox sëñ bi nga xam ne ñi gën a ciiru foofa ëllëg xam nga sëñ bi waaw dafa sooy na waaw sooy na moom waaw sooy lool ñu def yàlla de yaakaar naa ci misaal ku dem ñaari ñetti ñii bu bu bu demee mel na gaaro yaakaar naa duñ bokk fu ñu ne borom bi yaar borom million ak borom dërëm bu bu bu ñu fanaanee nag Ndakaaru ndax ñu ñooy bokk ku waaye dal yaakaar naa du du ko bokk de hôtel yi wute na lool te am soo ko mën a am hôtel lu ay nangam yu mi mu jëm nii ko mën a am mën naa am hôtel yu jëm nii ka ab këyam këyam ni moom mu dugg ci ci hôtel yaa ngi fekk na benn kon si doom kon comme ñoom ci dajeem ñu ko dafa ci moom ñu ñu ñu ko dafa ci de kooku kooku kooku sonn lool foofu pour xam naa ne ni moom mosoon naa bàyyi ji xel su ko ne aw suuf lay si ballu da ko si si waay dañ ko nit mën naa bàyyi xel lool su su ko ne aw bu day day wut ab payaat di ko liggéey sëñ bi di dox ci kër gi ba tolloon moom mu daal di fëgg daal ne ku toll lu fii soxna na ndaw bu gën nekkoon ci la ci la ko man la aw suuf mu ne ko looy defoo mu ne ko damay defar ab fajar nga fekkoon ci ci ci ca Fekal ba suñ ci waa soxna yi daw leen jox ab lal bom fajar takat rek leen jox takat dañ cee xam noo koy def soxna sa sa daal sëñ bi ne ni ci ci ci ne ko waaye law yéen ñi sañ a wut fu ngeen di xaare ngelaw soxna sa nee na keroog la ma la ma dégg sëñ bi tudd waat boobu nee na mu ne ko aw busoo jégatil ma dégg la bala ngaa mel ne doom ju amul nijaay ci mbëj ba lay dégg ne ko ci ne ko aw buso mbaa du ngeen bàyyi yéeg fere yi liggéey bi ne waa bu dee soxla ñu ko ku deewal te bi ne ko ñiy fay xamuñu ku jotul daal di ne ko aw buso bu la kenn tee jaaw mu yàlla àjjana day benn góor la am te du ko dugal ku ku ku jànguwul te tamit soxna aw buso la de ngay kenn ci ban xam xam xam nga loolu suñ ko lu ci léegi ni ni koy ci waxee ndeyam si Bamba ni ko dana gaaw mu yàlla de loo kenn tee def ajjana benn borom la am muy yàlla ne ko du dugal nag bu ko jaar mu wut aka aka leer yaakaar naa loolu ma taa bàyyi xel loolu am na su sëñ Moustapha Lo ci Abdourahmane nee na ma daa am kenn ci soxna yi batax yi ku ko batax dem ci Daba Marché ma ñee dem dégg fa kuy waaraate di wax àjjana rek di neex lool ba mu ñibbi si mu ñëw di wax soxna yi nag na ah man de àjjana joma di di cee jaba wóote naa jëndu sëñ bi la wax takkawute takkawute sëñ bi xam nga àjjana sëñ bi nee na benn borom la am am na ku ñëwoon njëriñ koo xamante ne ne ne xaalis ko yi li mel faal maanaam ku ku ñuy wax góor gi bi bi seen sàmm moo ko indi ñëw ci sëñ bi koo kooka tool dañ ko jox ak bu bi bii maanaam ñëw ci ci na ne ko de daa bëggoon ci réew ma ci ci may dëkk ci mu ñaan ma mu ne ko yëg mu ne ko li ko mu gisa tàmbale moom min na buntu yo mu rëbb ko ba mu ñëwee ba ci sëñ bi dañ daal di ubbi fenêtre fenêtre la wax day gudd ba suuf dañ ubbi ko toog ci suuf daal di mu nuyoo ci yoon daal di di ne jiwal yëw dene ko ko si la tiiree xarit ko siyëlle ba beneen nen la da dane dafa am tool bi liggéey bi di ko yox bëggoon na ñaa ko waaye jé génne ab sëq ci bootam ci xaj booba ne ko jéyi sëñ bi dé dé ko fere suuf mu def suuf sëñ bi def ci suuf xam naa bañ mu naaw kamara nekk li moo moo ci ne doola daal di ne sëñ bi dina ko ku yóbbu lu mu jublu ci ci xaaj bi mu ne ko sëñ bi dina loo jublu mu ne ko xanaa gudd fan am alal day dem àjjana xanaa daf na leen ba ba muy wax nag ma yërëjëf sëñ bi ne ko faral mu mujj wi ñu ko ne nee na waa ji ci ma far ko ngir ba dee xam-xam sëñ bi lu lu ciy teg sëñ bi ne ko ku bëgg a ku bëgg a alal da ngay nangoo liggéey te jubóog ci ña nga dëkkal maanaam ña nga bokk liggéey ba maanaam maa ko firee noonu ña nga bokk liggéey ba soo bëggee soo bëggee nag gudd fan da ngay da ngay bañ a def si yaakaar te bañ a tëj ci kóllëre kon amaan na ko am kon amaana boo ko doon de da ne kon amaana da da da ko am ne kon da ngaa jënd benn borom la am da koy jaay sa koomu boo ko jënd da ne bëri ci wàllu ceeb moom ak alal ja loolu man bëgg naa lool ñu koy bàyyi xel fan yii dafa am sama benn mbokk boo xam ne daa jënd ci jënd gu ma yéem gu ma ci tëri lool nee naa daa dafa am mbokk moom ku ñuy wax sëñ Abdou Kan daa xam rakam yu nelaw mu déggoon nag ñu ne ku jàng mu xaddamaat ci bàmmeel def na jigéen borom waaye dafay def ci guddi ga mu mu génn dugg ci barab yi maanaam léegi ba jub barab boobu ba certes ja certes ja jóg ne waaye jabar nga de waaye day fii li ñu koy waxee dafa dafa doxewul noona ne ko fii day dafa dafa bari ko contrôle lool te lu ne dañ koy laaj daal di di ne ko ne ko nag mbooloo moom ñuy wax murid day ñoom seen mbir ci fii dara ndax lu lu lu ko waral li ñuy tudd sëñ Tuubaa di ko dendale ak yàlla xam nga lu am solo de sirku billaahi mooy soo soo soxna ci nga yóbbu ci kër gi di ko jox la nga am moo ndikki añ reer ngir lu ci ci ci guddi gi ci buntu tugar bi te fekk kenn mu ne ko ah yow moom mbaa kër gi nee na mu ne ko ah kër kër gi day ñëw na ngay fii moom doo fi lekk doo doo doo fi naan mu ne ko ah yow kon ku lay jox lekk nag mais boo xanaa jiw yàlla doo ba kër ba dit ko guddi googu sëñ bi doo soxla waaye ndax dara ko neex su loolu tey tey ñun fépp fépp la ñu koy def fépp ba nopp tey nga yaakaar ne keneen da caa mën dara sëñ bi bugg mag ji imaan ñu sëñ bi doon waxtaan dafa am benn sëñ naka bu ñëw bi moom yelwaan bi muy jox jox ko dara ko fere ko def ko yàlla na la sëñ Tuubaa defal nangam wóolu ko mu ñëw mu ne ko da ngaa yàlla na la yàlla defal nangam ci barkeb sëñ Tuubaa xam nga loolu mooy tax it maanaam nguur jëpp loolu ci bopp yàlla nguur jëpp rek soo ko jëlee yàlla nag soo nekkee nag sañ ngaa mel ne nga bindul leetar Abdoulaye Wade du ko mu mu mu defal dara waaye yaakaar naa ci waaye fekk naa da ngaa xam nag Souleymane Ndeye ne te yow yàlla te tur naa la Abdoulaye Wade xawu la nga bind leetar di defee turu turu turu man la Souleymane ne ko joxal ma ko góor gi Souleymane su jëlee benn leetar ba signé sax jox ko góor gi góor gi moom du du xamu la yow moom la xam. la nga bëgg dara mën naa mooy ci barke jiw leetar bi bu bu jógee ci yow jëm ci suñu borom jaar ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa rëdd jiw turam bu dikkee suñu borom du du xool Mustafaa moom sëñ Tuubaa la day xool loolu mooy barke jiw waaye nag ci moom dikk moom mooy yàlla yàlla moom sëñ Fall lu mu baax ma saa yu saan ci kër kenn ci waa kër sëñ Fall bi di wax ma ne leen ab kaso yëpp bàyyi Cheikh Mbacke teew la ñoo ñoo nekkoon Thiel kër Mbaye ñu ne Mbaye Fane Thiel këram nga ma ne leen li naan suñu Fallu dafa wax ne kat suñ ci waa moom su woo li ma wuteeg moom mooy su soxlaa ba yàlla da dafay tekki man nag sama suma soxla yàlla moom mooy tekki ma ne suñ def suñ Fallu boo ko de ndax yàlla ñëwul ci temps ak espace ñëw ci de yàlla du du du tuxu waaw tuxu moom ci mi ngi mi ngi bokk ci matière. soo ko ci gëm ne yàlla day day tuxu rek gëm nga ne kon yàlla moom matière la te te li matière lu ne kon moom lu ñu bind la yàlla seen bind ko yàlla yàlla du du tuxu de yàlla bokkul ci li ñu xam bay xam sax nu muy doxee ba ba ba ba waxee loolu ba dugg ci kër ga bay ci xaw bala ni ci dama li nga wax day si fa lu moom laa wax nee na kat li naan loolu lu ma wax maam déedéet day def lu bu yàlla dogalee dogalee les dara awale ko ci sama ñu mu mu tudd ko ma ne ko man ba sëñ bi kon téye téye téye ko waxoon topp nit ñi maanaam ba nit ñi xam ne si si fan loolu loolu laa wax maanaam nguur yàlla gi moom kenn suñu ci seeram ab seer rek amul ko sëñ ci nguur yàlla gi dara bëggoon naa daal loolal maanaam taw xiit gi ñu fàttaliku ko xam nga xoolal suñ ci waa ba mu demee ca ca ca askan am na surtout suñu leneen mi ngay nee ma suñu waa bi ñu doon liggéey jox ko. suñ Tuubaa doo ko ak kamara bu ko ko joxee junni dërëm ñu ngor du ñu rek yeesu yo xaajaniya ci moom ndax booba ak kamara booba nee ñu mooy xut bu semani yi sëñ bi jox ko junni dërëm ngor boobu junni dërëm mi ngor booba bañ na lool ndax ndax ndax ci at yooyu rek doon ba bëri booy maanaam dërëm am na booba kon man ko ko junni junni dërëm moom ko ko ko ko bëri na ko lool ak kamara bu ko téye sëñ bi sëñ bi lu tàggu tàggu toog moom man zanna gayra allahi yugni aw yadur ku yaakaar ne kenn mën naa jëriñ wala mooy lor fasaada fi daarayni zu kasbin wa dur soo ko adduna alaaxira dana dana xalsam naa toom de ku yaakaar ne turul yàlla mën naa jëriñ mbaa muy lor soo ko xaaxal sa sa ci na toom de ci xam nga si tubaab mi ngi wax ak sama ne ko man kat gëwuma ne yow yaa ma jëriñ te dafa ji ni gërëm yëngu nag ngeen warmal yàlla ci li mu la def dara ji ji nga am waaye man xéewal ak lor maa ngi ko yaakaar ci borom bi mu ne mu ne ko ak durru war na ko min rahmaani laysa min al bidaani wa sudaani ci lor ngeen day ñëwul ci ñu weex bi ak war boobu dana ko def bu def daa naam ci ñu ne ko ñuul ak ñu weex ñëpp ci am lor ngeen mu yuruñu ko mi ngi mi nekk ci loxo yàlla ne ko ak durru war na ko min al jabbaari laysa min al fujaari wal abraari loolu ngeen ñëwul ci ku baax mbaa ko bon dara adurru wa ci woon nag min al wahabi laysa min al aadaai wal ahbabi ne ko ngeen ak loolu ñëpp ci ab soppe mbaa am noonu ci def sëriñ bu dong la bu ñu ci ab sëriñ jox ko junni gën a ñu ngóor la booba ba noppi di di ko wax yi naa ko mën fii ay man maanaam parce que ci ci ma ne muy fii yàlla kat daa teral ma ñëw daa teral ngir jëm yàlla ja waaye nag yàlla képp tey mën a jëriñ loolu la ñu ngi ko ay bëgg ñu ngi ñu ko andi woon ak sëñ Tuubaa ak ak ak i gaaw sëñ sëñ Tuubaa wax na boo demee ci ma ma ma ma ma waxoon ma nga waxam nga dëppoo kenn ci wàllu yàlla yi nekkoon tëj gi ñu tuddee ko ba jox samaan ak nuur si ba jox samaan sànni du diin ak nuur si sëñ Tuubaa ñoom ñaar ñoo baadee ñoo ko bokkale képp rek dañoo wax ne inna alal maqaamaati fi hada zamani wa baadahu iskaaru tawxiidi fi qalbu mais li maqaama mi gën a rëy ci jamono ji ak di ñëw mooy dëkkal ci sa xol bi tawxiid wéetal yàlla. saa yu diin aussi moom teg te ne coono xale ji jeexandi su di gàttoon jamono du yittewoo lu may dugal tawxiid ci xol yi rek li gën a gaaw mooy tawxiid man de tawxiid moom dund naa ko li may wax. am naa ci ndimbal lool ndax dund naa ko ba yëg ne yàlla day dana may sarax loo xam ne maanaam xawma woon tax ne loola am na ko dama koy ñaan waaw xam ne sëñ bi topp bu mel noonu xam ne da lay jox ba danaa jox loo xam ne xamoo ko woon dafa dafa dafa ko ñaan bi mu leen la ko yokk nag nga xam ne sax mënoo war a ñàkk lii ah kay kooku moom mën naa mën naa dégg mën de mën naa mën naa ànd ak moom de ndax kat kan mooy al al alxaniyu mooy daa yor ba fa jàll te lan yor man du jeex suñ bam ba suñ sang baat yu si gaal yi salaatu ci ci wasalaam dañuy barele barele seen seen seen barele ga ci biir barele yàlla ci la rek yàlla ne moom barele doom néewul ci biir barele kenn ndax daa ëpp lépp moo tax kon daal maa ngi fàttaliwaat bu baax ginnaaw bi ma koy fàttali sama bopp mooy taw bi bu yéesal yàlla man daal lu lu ma neex la lool lu ma gëm la lool ku may gëm ku may warmaal dama lay warmaal ngi jëm yàlla ji rek waaye nag xaw ma kenn kenn dal ku dul yàlla nee na laa ilaha illallah xam nga lu muy firee mooy day day dàq nag kenn mënut yëgul tinul xamut fii fanu jëm ku ma yàlla oh dina neexa de laa ilaha illallah moo tax si loolu ñu ñu ñu ko sikkar maanaam di sikkar laa ilaha illallah boole ko ci ci di di di sikkar masaa koy wax laa ilaha illallah ni mu foore ci wenn waxtaan benn waaye daf daal jóg sikkar xanaa sax ku baax la ma ne ko ma ma teg mu sikkar ba nopp mu jël ma ne sikkar nag ci dafa dafa dafa am lu ñuy wax zikru jawaare ci nit ñi la sikkar xam nga lu mu sikkaree bañ a mooy yàlla xol bi day sikkar xam nga lu lu lu mu sikkaree wéetal yàlla roo gi da day sikkar xam ngeen li muy sikkaree maanaam yàlla lu dul yàlla du senkat ca xol ba lam yoon li muy sikkaree baat yooyee muy affaire bu mu mu koy tudd di di xam maanaaya xel mi xam nga nu nu muy sikkaree mu xam mu muy xool ci lépp yàlla ci ne Sëñ Tuubaa nee na lam ara xayrahu wala arahu fi cheyin xadaawu wala wala nee na man de gisuma ku dul yàlla waaye nag mu ne doomu du fenn de am na ci suugaanke yi ci yoo xam ne dañu ne du du ma gis dara damay mag ci yàlla teel bala mag ci yàlla teeloo la waaye loolu kiiraay la yàlla ko ñu ci ci dara Sëñ Tuubaa ne man lam ara xayrahu waaye wala raw fii si nag waaye nag loolu mooy witaar ñi gis yàlla ci lépp ñoo ne moom mooy wusul waaye wusul ga dafa am lëndëm mën na laa dugal ci nga yaakaar ne li ngay gis yàlla fekk na du du yàlla ab jën sa fekkat ci ci seetu ba rek seetu ba ba ba dojoon da da nga xam ne seetu ba du du moom leneen la ci tubaab nag ñoom ne ne man gisuma ku may yàlla waaye du ma gis sax ci dara oh kooku sëñ bi guddal yàlla de seetal maa ngi guddal waaye ci seetal ba mu ba mu ba mu demee ca juróom dara benn mbokkum taalibe bi bambara moo ko moom moo ñëw ci Sébila di ko di ko nekk ne ne ne te ma ne fekk ci woon naa témoignage boo xam ne bëgg naa ko wax bala mu mu mu mu fa jógee ndax mag laa ne ko tey suñu tool bi ñëwee ci juróom dara ba man booba Franco laa woon ci biir bureau ba commandant wala gouverneur général wax ne. ci jottali sëñ bi nekkoon na dindi kaala ji sëñ bi nanguwul nee na kon nee na góor na jug da daal yëkkati kaala ji nee na bu yëkkati kaala ji di dimi nii te wax bi yëkkati ko jëm noona mu def ko nii te wax jëm noona ko ma góor na daal di ko tegaat bopp bopp ba mu jëkk mais nag xam ngeen booba kaala ga boobu lu muy lu muy représenté xanaa booba laa ilaha illallah booba dara boobu l'islam dong lay représenté moo tax doo la suuf maanaam sëñ Tuubaa li mu am lépp muy da yàlla jaare maanaam dalla ne laahu maanaam Muhammadin la wax yàlla yàlla laa xam ne moom du ma ma ne ko daal nag mu ne ma ne waaye soo ko dinañ ko di mooy kee comme ngeen fa yoore laa ilaaha illallah ak am ngeen yi boobu moo tax dañuy ci bi daay tar su su taam ne dee leen ko sax seenu ku nekk ci wàccaay nañ ko koy sax fekk nag buñ la ko waxal di del wax ci wetam rek mu muy xam ne baat ba ba mu yoon ma ko wax su mujjee ci orlamier rek àjjana la jëm ko aj suñ boom di diba nee na ci tur ko kul diwar yi ñu dara dara dem alaxira xool bu dee dina suñ de suñ suñ boom ne ko ah loo ko gëmal ma mel ne ko xanaa jëna ma mel ne ko ma ne de dama ko doon doon jaay yow mu ne ma mel ne ko la ma ko daa yi daa ilaa rek nga gëm ne man rek ah bon suñu bopp léegi xam nga ni di li ko téye ci soxnaam yàlla bi moom de yàlla ak la fi yàlla lépp loo ko booleel mu ne la ana arz na shuraka boole yàlla diw yàlla ne ma kat yàlla soxlawu ma te te ma ne kat yàlla kat bu soxlawut loo jaay alaxira ba ba sax kenn gën leen bu dee lu baax kenn bëggul ndax ku dul yàlla su ko su su dindul doo ma jëriñ kenn loo koy jaay lu mu rëy rëy te yàlla dina jël loxoom kenn du ko jël moom moo tax yàlla rek loolu moom ma koy fàttali bu baax a baax xamaa ne di di di di dégguloo sama waxee ni ñuy teg nii laa yëpp man ma ne nii laa baaxoo waxee nii laa mën a waxee nag wax ji mën naa bañ a bañ a neex mën naa bañ a dëppoo xol yi mën naa bañ a dëppoo xel yi waaye man nag di di maanaam jëmmi suñu borom ñi nag damaa gën a lépp nag su ma ñàkkoon lépp daal damay wax ne lu waay am téyel man daal bu bu ma ñàkkee yàlla rek man damaa ñàkk lépp nag wóor yi lu seen li am lépp nag dafa mën nañ ko téye man soxla mooy dara xam nga ko ma wax yàlla te damay wax ne àjjana lii ñuy wax pare dama ko ko ñaan man xam nga loolu ci ci taxa àjjana ak Mariam parce que am dong la ngërëmul yàlla li damaa gënal ngërëmul bu yàlla it su ma ko amoon ba ba noppi xam nga lu ma ñu soxlaa yàlla nekk ci rek wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu neex na wér na def sama képp am na
jërëjëf Cheikh Moustapha Gaye yàlla la yàlla dalal te defal la tawfeex suñu wax jàmm na solo lool ndax tawxiid dafa man ci bu baax te Seexul Xadim téere bu njëkk a bind ci charia bi te sulu sixar buntum ñaareel ba tawxiid la lay jàngal kan moo suñu borom waaye léegi nag li ko waral mooy taalibe yi xër nañ te àll yi gàtt na te comme njàng mi nag soriwul gëstu ñu waxi Sëñ Tuubaa faw ay wax yu bëree bëri day am yoo xam jëppoo ma ko suñu bëggee waaye bu bu ñëpp daloon si mbindum Sëñ Tuubaa kon du tu tu yàlla du ko tudd di dellu kenn ndax Sëñ Tuubaa yàlla la doon jaam dañ ko bañ ko ne suñ bi yoway kan dañu mën a abdullahi wa xadim wa suuf man jaam yàllaa ba liggéey du sax du ma keneen lu lu lu mu mën a toll am lu lu lu jaamu yàlla rek laa mën a doon rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi ngi xëy moom moom moom moom mu yónni ci jàmm nu mu nu mu mën a toll mu mu di digg ab jàmm nit ak mbaa misku ci mooy maanaam diggu ab jàmm jàmm mooy ku jaamu yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko suñu borom di wax ci riñaan ga baatub jàmm la jëfandikoo mooy subhaanallazi asra bi abdihi la wax laylan minal masjidil masjidil haram kon baatub jàmm mooy lan jàmm nit ki mooy nangul yàlla nangul yàlla ne yàlla am na nga jàmm ko te sëñ Tuubaa nag naka jëkk ci loolu la ci ci ci loolu la wax saa ci ci ci ci noppi taalibe yi jaamu jëleen yàlla jaamu jëleen yàlla jaamu jëleen yàlla kon nan góorgóorlu baax a baax da gën a dëgg da gën a dëgg a tawhid ci ci ni mu ko waxee gën a xam sëñ Tuubaa mooy kan ndax sëñ Tuubaa suñ suñ moom lay lay wane moom rek la joxoñ ndax ahbatu ndox rabbal alamin ahbatu rabbal alamin doo wax ni mahal amin kon boo suñ quoi boo déggee waxam da nga xam ne moom taw di ko sama bu fekkee nag déggu ay waxam jàngu ko nag déggee waxi mbedd mi da nga réer réer bu réer goo xam ne yàlla na yàlla kii kon jërë ngeen jëf wa salaamu alayna wa aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon képp ku am laaj mën nga ko yóbbu fii ñu tontu ko incha allah.